man ku nekk xam na ni aw ma tànk damay wax di toog mais je pense que tey li ma gis le coup en vaut la chandelle ni ñu koy waxee xaw ma ba xam jaar na yoon wala déet jërëjëf dañuy sant yàlla bu baax a baax di dolli julli ci yonent bi waaye monsieur le ministre di remercier bu baax a baax le président de la république gis nga fi ñu doon séddalee courage defe naa amam ci am ya fa jëkk la bokk xam ngeen viol dafa nekk problème fii ci Sénégal nekk problème ci àddina bi jigéen ñi solo lool fi mu nekk nii ñun yaay ku ci génn tey ñëw assemblée wala nga doxi leneen sa fit bi yaa ngi ko parce que yaa ay njaboot ca gannaaw yaa ngi ci ay sët te sa xel bu toog ndax li xew léegi ci jamono muy viol yi muy attouchement yi ñuy def xale yi kon loolu bu président toogee ba jël ci ay motuwaay pour ñu sanctionner ñi nga xamante ñi ñoom ñooy def ñaawteef yooyu dama ni voilà un acte à saluer nañu ko jërëjëfal parce que lii dafa rëy ñun de biñ ko annoncé ni bi dañ koy criminaliser bi ñu demee UP ba ñu ko annoncé le monde entier a applaudi au niveau international ils ont applaudi ils ont dit voilà encore un acte de courage boo xamante bi Sénégal jël na ko moo tax bi ma ñu gisee nga xaaw ni tekk dama xaawoon tiit am njàqare waaye la ma waxoon keroog sama xel dal na ñun lii lañu doon xaar ñuy remercier nag organisation féminine yi fi nekk yépp ndax lii dafay xeex bu yàgg ñu di ci soog a jot kon jëf président de la république ci criminalisation viol bi jërëjëf président de la république ci la mise en effectivité de la parité jërëjëf le président de la république sur l'autonomisation des femmes président xam na ni nous sommes des personnes vulnérables ñu jël considération xam loolu di nu taxawu nit bu la defalee lu baax danga koy wax danga koy sant ñu ngi remercier président bu ñu jógee ci loolu am nañu ko fi wax ñun suñu justice xam nañ ne du justice su foowukaay du ñu jàpp nit rek sànni ko ci kaaf ñu kuy sànni ganaar bis bi ñu demee bay tëj nit rek dana fekk def nañ ci gëstu gëstuwaat def ci ay enquête yoo xamante yi ba mu wóor na leen ni kii li ñu koy tuumaal def na ko bu boobaa ñu àtte ko ca lool kon côté boobu man personnellement ci confiance bi ma am si suñu am naa ci dal xel may wax ni lii c'est phénomène mondial euh, le président Gadio wax na ko moi j'ai été en Afrique du Sud di discuter ak ay femmes ñuy évoquer ces problèmes mais même au Congo Euh, entre parenthèses, je suis la présidente des droits humanitaires pour la région Afrique au niveau de l'UP. Mais au Congo, des gens m'appellent, ils me saisissent, di wax ci waxu viol jigéen ni ñu sonnee un peu en Afrique kon dama lii ñi ngi sant yàlla fii ci Sénégal waaye na nekk loo xamante ni monsieur le ministre invité ses collègues pères en Afrique parce que c'est une souffrance sénégalaise mais africaine ñëpp bokk adopté cette loi à l'unanimité pour protéger la femme africaine man loolu laa lay ñaan loolu laa lay ñaan monsieur le ministre lu baax boo ko amee da nga koy séddale da koy bokk am nañu coono Sénégal ne coono yaa nga feneen ndax buñ la nettalee la xew Congo sa yaram daw buñ la waxee la nekk Afrique du Sud wala Afrique centrale sa yaram daw jigéen ñi sonn nañu te ay yaay lañu kon nag tey ñi ngi sant président jotuñu ñu ko cant bi jotuñu ñu ko ngërëm li xam naa ni liggéeyam ñu ngi xaar parce que bu ñu nettee cëpp UP dinañ ñu ni fu ngeen jaar kaay leen partagé ñun asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh Je vous Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collaborateurs des ministres, chers collègues en vos je vous salue. Monsieur le ministre, ñoo euh, ngi indi yóbbante wax ni il y a neuf mois de cela menace fii suñu doom doomu immigré doom bu baax a été violé ou a été tenté d'être violé et tué en Manchester précisément jàpp naa ni xale boobu mu ngi tudd Lalla Camara xam naa Camara yi bëri na ci loi bi mais wute na. naqaree noonu lañu bésu Binta Camara bi naqaree ba taroonoo liggéeyi lu mat ay fan je pense que keroog bi ma gisee papaam sax jooyaat naa fii ci assemblée parce que ñun dañoo jur ay doom nekk ay jigéen xam fi ñu xam ni bu dul woon ay yaay yu am fayda wala ay papa yu am fayda wala ay mag yu am fayda am na foo xamante ne duñu fa egsi kon monsieur le ministre ñoo ngi lay wax ne su fekkente ne sa kàddu mën naa egg ci borom dëkk bi nga wax ko ni ko na ko étendre ba nga xamante ni ñoo connaître actes yu mel noonu ñu jële leen fa ñu nekk dellu si leen fii ci Sénégal jugé leen pour la maximum de peine ñoo ngi sant bu baax di kontaan ci loi bi mais nag di ci am ay denc denc yoo xamante ni dañ koo denc di xaar ndax dañu wax ni ci famille sénégalais la nekk te famille sénégalais kat ku ne xam na ni ñu bindoo moo tax ñuy wax ni attention aux erreurs judiciaires parce que notre justice n'est pas mature te li may wax yoon ñépp xam ngeen ko parce que fii ci réew mi dafa am la nga xamante ne moom lañu war a jiital ni ay préalable balaa ñoo indi lu mel ne loi bii dinaa ci boole fexe ba ñu am ay médecins légistes yoo xamante ne wóor na leen ni ils sont formés tout simplement pour ça détecter le par pénétration même bu fekkente ne am na ci xale ko commettre wala ci mag parce que jékki-jékki rek tëj benn nit boo xamante ne wóor na la gis na ni ñuy demee dañuy toll ba pare dem ci médecin ñu ko bindal ma mu bind indi ñu jël nit ki tëj ko nous avons respect un respect ci suñu médecin yu sénégalais yi xam nañ ni ñu mën seen métier la mais famille sénégalais moo mun manipuler donc man samay garde fou foofu laa koy accéder ñu fexe ba nga xamante ne képp ku ñuy jël di ko denc nañu ko seet ba pare. doo ko teg ci yoon monsieur ministre waxoon naa ko léegi suñu justice faible na mais nañu moytu aussi li nga xamante ne mooy règlement de compte yi ci lii lañ koy gisee am nañu loi xeex nañ ci jigéen ñu baax yu góor yi àndandoo ci ak député yépp ñu fexe ba nga xamante ni président de la république nangul nañu ko ñu ko ciy remercier ndax su suñuy doom rek la ñuy protégé protégé wu ñu doomu Masamba doomu Mademba doomu Sénégal yi la ñuy protégé mais nag dañu moytu règlement de compte yi parce que yu sew sewaan yi fii sax dañ ciy def ay règlement de compte te loolu war naa mën a daw ci biir loi bi ba ñépp xam ko monsieur le ministre may ñëwaat ci beneen ragal bu ma am wax ko léegi ak suma collègue man ko jigéen ñi dañu gën a exposé te nañ ko xam ndax dañu gis ni loi bi ñëw na est man su fekkente ne jàpp naa ni war naa mën a violer nit est-ce que du ma dem à l'acte final benn yoon ray ko comme je exposé à la maximum de peine déjà muy tiitaange boo xamante ne ñëpp war nañ ko am neex na lool na bànneex na mais nag nañu xalaat ni am na ña nga xamante ni tey ñu ngi toog ci ginnaaw c'est des violeurs peut-être am na ñoo xamante ne euh, feebar la ci ñoom ñu war leen cee dimbale faj leen comme li euh, honorable docteur wax léegi ñu waxtaane réew mi waxtaane waale yooyu mais am na xamante ni dañ naan bala ma koo violé tuut cap rek tuuti dem naa ko rey benn yoon comme ça je suis exposé à la maximum de président je vous remercie la pare tamit peut être soxna